que démb la fi jëlee Balla Gaye yóbbu ko ci tubaab yi Balla Gaye def pile de presque deux mois. Mm-hmm. Balla nag mu ngi soogam tegu ci yoonu làmb ndax sportif day am kilifa. te Balla gay mboolem li nga xam ne moom la ko Aziz di wax Balla Gaye da koy def bi mu demee ci tubaab yi lañ ko fa teg seetaan naa seen signature moog Bombardier xëy na Bombardier ma ngi xeeb li Balla gay def wane ni moom foofu jaar na fa. jàngal nañ ko affaire yi moniteur et cetera et cetera mais ku xool entre Bombardier ak Balla gay xam ni bokkuñu. te li leen wutale mooy fi Aziz dem yóbbu fa Balla Gaye. Mhm. Balla Gaye entraîné fa ba am état bii man état bii gëw ma ni woon am na sportif bu ko mën a def ci nit. mais ñun ñi nga xam ne làmb rek la dund si kàttanu yàlla bu ñu demee ba bis ba ba arbitre soufflé li Bombardier waxoon dana toxu li Balla gay wax dana toog. mais dama gis seen premier combat ñoom ñaar Bombardier da koo daan ñu bari ne Balla Gaye dafa feebaroon Bombardier ne na dem faju ba tane bu dellu siwaatee mu dumuwaat ko daanaat te fi mu toll nii moom dafa mel ni Balla Gaye allah. xam nga bët moom natt ci bët la yam ku seetaan diggante Balla Gaye ak Bombardier bu njëkk ba. Mhm. lii ko Balla Gaye di wax dafay bañ a salteel victoire bi rek mais man dama yox toujours ni Bombardier du mës a jël photo bu mu daanee Balla Gaye ñu di ko jaay. xam nga bi làmb démarré ba léegi heure bu ay mbëri bëree ba pare jël la am dañuy jël photo bi di ko di ko jaay nit ñi ñuy wane fi mbër mi daane mbër mi mu doon bëreel mais jamais ji jël photo Balla Gaye di ko jaay. loolu ndax li tax loolu mooy bi Balla Gaye di teg fes ji mi ngi teg épaule te ñi gën a xam làmb te du ma tudd seen tur di leen jaxaseeg Bombardier ñooñu nangu na ni centaine de millions yi ñu leen fay jël bi waroon na jë nekk jël boo xam ne li leen fay vraiment raisonnable na maanaam jël bombar Bombardier bi ak Balla Gaye dafa nekk jël boo xam ne à vrai dire Bombardier toujours ma ngi naan Balla Gaye maa la daan mais ci làmmiñam lay yem eggul ci xolam su ko doon daan daf koy daan ba toog ci kawlam wala daan ko xeetu jël boo xam ne. mais nag mais nag Bombardier dafa duma Balla Gaye de père. waaw en réalité dañuy waxtaan rek xam nga déjà yow sa émission rek nga bëgg mu neex. waaw mais. bi Balla Gaye def coup de dégagement ci la ko bombar ji kor déclenché laaw daw di ko plaqué. bi Balla Gaye dem ci suuf fekk na bombar ji dóor épaule am. di fait que combat boobu yàlla dogal na Balla Gaye nee na dafa feebaroon. ñun ñi ko yor nii dafa feebaroon. bëri nañu daan nañu ñu ngi ñaan victoire bi yàlla na ko jig. mais fi mu toll Balla Gaye tane dama ni Balla Gaye <laughs> dépassé na tane. indi na état de forme indi esprit tranquille am na dirigeant yu baax yu mel ni Baye Ndiaye ak Aziz ak ñi ko dar ñu ci biir Guédiawaye am na borom boromi xam-xam yu ko dar Balla Gaye nekk koo xam ni kenn jàngalu ko bëree. li tax làmb ji lenn rek moom ma ci metti mooy lii nga xam ne suma mag Gaston Mbengue nga wax na ko làmb ji fi mu toll ci réew mi e benn junni nit bëgg dugg ci biir stade bi bëggoon na à l'avance combat bi vraiment ñu waxtaan ak borom réew mi ak ñi ci réew mi yëpp ñu xam ni feebar bii fi ñëw jógee gu fi ñu takk masque yi raxas loxo yi dagg billet yi dem ci stade bi mais suñu bëree ba pare ci ngay xam ni li mbër yëpp waxal Balla Gaye ni moo dàq bëri ci mbër yi Bombardier bu boobaa dinañu ko këpp micro ni ko ku mën ci mbër yi mu ne Balla Gaye ci man ba nga laaj ma leneen. mais léegi dama gis combat bi combat bi ñëw na mais dañuy gis Balla Gaye chaque signature dafay défilé wu di wane ne dama pare dama am doole chaque jour ay tous yenn yu kàddu yoo xamante ni daal gën nañ koo gis ci Balla Gaye wala gisatuñ ko woon dañuy gis Balla Gaye bii ba moom moom ak ñoom baabooy moog ñoom Modou Lo Balla Gaye boobu lañ gisaat lan la confiance bu ngeen am la wala dafa am lu leen dee ci combat bi. man de en dama ko xaw mere sax lan laa ko meree mooy Balla Gaye li mu doon wax daf ko wàññi. li mu doon def. li mu doon def man sax dama am problème c'est parce que Balla Gaye dafa daan ñëw ci combat jaay ko wax heure bi muy bëree ak ni muy bëree mbër mi mais combat wu Bombardier ak Balla Gaye daal Balla Gaye daal ku respecté Bombardier la ndax Bombardier c'est parce que Balla Gaye waxee ak moom ak nii Bombardier dafa nekk mbër mu yaru mais qualité yii ma gis ci Balla Gaye ci wàllu état forme ci wàllu kattan expérience bi Balla Gaye am fa mu demoon xam-xam bi ñu def ci moom bu ñu sëggee bëri ba pare yow di nga regretter li Balla gay doon wax Balla Gaye dafa waxul dara. actuellement daal bu ko bu ko Elton bu ko euh, bu ko Gaston Mbengue doon jox vingt millions wala benn trente millions ci ni mu daan signé contrat bi Gaston Mbengue na ko wàññi ndax Balla li mu doon waxu ko te lu ëpp loolu mu ngi ci moom kon ñun waa Guédiawaye ak waa ak waa Casamance ak ñu nekk ci diaspora bi yëpp nañ doon gis Balla Gaye xam ne Balla li mu ni mag la daal dëgg la. daal tàngoor yi wàññi na ko. naka nga gisee Bombardier. waaw ni ma gisee Bombardier mooy mbër mu jeexal la. boo xam ni na gërëm Balla gay gërëm Gaston nga gërëm waa CNC waxuma ko nag pour sànni ko xeer ndax. Bombardier jeexaloon du xam nga jeexal paasewul Bombardier bu ci fekkoon ni tey Gaston nga jàpp ci. Balla Gaye jàpp ci président Bira Sène xam ni bon làmbal lu ko defar moo ko indi kon Bombardier wartul bëre kon ji bu toogee di naw kattanam di naw xam-xamu bëreem. su bëreeg Balla Gaye ba pare day dem talal loxom jox kayitu retraite Balla Gaye dana wane ni kii retraite na ndax danaa ko yóbbu retraite ba nga laaj ma leneen. mais est loolu dina yomb yóbbu Bombardier retraite ak la leen naqadi woon yëpp moo leen ko teg fi mu ngeen war a jël si waat revanche est-ce que loolu dama lay wax ni si kàttanu yàlla Balla Gaye dana wane ni wax dëgg yàlla maa ngi ñaan yàlla na xam nga yàlla dafa nekk buur boo xam ne moonu moom moom àdduna bi moom bis ba tey ñu ngi nii di wax ci combat bi ñëwagul mais ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ni moom moom ndam dogu naa ci Serigne Babacar si heure boo xamee ni sunu borom far na ak ñun. Balla Gaye dana bëri ci stade bi lu tax amateur yi nii nañ leen jaayaat bi yi ñu fayaat lu toll ni la ñu fayoon gis nga mbër mi dëgg-dëgg li coow li di bare bare réew mi ñi fi nekk ñëpp di takk ngemb ay mbër lañu mais mbër yëpp ñoo seere ni Balla Gaye moo dàq bëri ci mbër yi si kàttanu yàlla le premier Balla Gaye dana wone ni Bombardier taxu koo jóg quatre avance yi Bombardier moom nangoogul loolu moom dama ni Bombardier daal nag wu jëm seeraas la amul mbañ si kàttanu yàlla li ma gis Balla Gaye dana xeex ndax Balla yi dugg na ci làmb ba bi muy bëri Gris Bordeaux la wane ni man mbër mu ñeme laa mu mën a xeex la mhm. contre Modou mu wane ko contre Bombardier mboole mbër yi mu bëreel Bombardier la ci gën a mere ndax bi ñuy bëree dafa feebar mu bëreeg moom jël roi des arènes bi yàlla dogal làmb di dox ba ñu boolewaat leen si kàttanu yàlla daal li mbër yëpp wax Bombardier dana ko wax l le premier la ñuy bëri le deux na nga dem mbuur laaj boo mbëri ji ku dàq bëri ci mbër yi danañ la Balla Gaye moo dàq bëri ci mbër yi ma nga laaj ma leneen